mbokk yi ginnaaw bañ sante yàlla julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam tàllalaat ko suñuy loxo tàllal suñuy loxo suñu borom moom mi nga xam ne mooy borom kàttan mooy borom man te soxlawut te yor lépp te lem te lem yor lépp itam doomu aadama yi rek la ko dencal ñuy tàllal suñu loxo di ñaan moom mi nga xam ne moo mën lépp te sañ lépp mu dundil lii nga xam ne moo nekk ci àdduna si te lijjal ñëpp moom képp te moom képp mooy ki ci man je moo man moo man jeexal ga ci jeexee leen jeexal leen woo xam ne dootuñ ko gis mu mukk dootuñ dootuñ ko gis seenati fenn kon ñu ngi koy tàllal suñu loxo di ko ñaan ci kattanam ak manam lii nga xam ne moo sonal àdduna yàlla na ko tegg ci àdduna si ba mu jeex tàkk ba buñ ko séenati fenn kenn koo xam ne itam yàlla suñ borom dogal na mu dal yàlla na ko suñ borom saafara ku mu dalagut ku mu ku ne itam yàlla na ko suñ borom musal loolu suñ borom mën na ko jàpp na ko yàlla nañ ko defal ginnaaw loolu itam ñuy tàllal suñu loxo di ñaan suñu borom mi nga xam ne mooy borom kattan te mooy borom ak mban Cheikh mun taxaa mi nga xam ne moom la moo fi nekkat Serigne Touba te xam nañ ne ci suñ gisin ci ñun ñëpp ñu loo xam ne luñ teg suñ bët la xam nañ ne li et li itteem lépp aadama yi loolee nga xam ne mooy itteem nag muy lu jëmal lislaam ca kanam ak lu musal doomu aadama yi te doon itteem joo xam ne ñëpp teg nañ ci seen bët yaakaar naa itte joojee yàlla na ko suñu borom gën ñu dëgëral gën koo coo jàppale te ñu ànd moom te daj cee ngërëm suñu borom luñ ci loolu suñu borom mën na ko jàpp na ko yàlla nañ ko defal képp koo xam ne itam yaa ngi yëngu ci tóorub lislaam yàlla na suñ borom dëgëral yàlla na suñ borom taxawal ba li nga xam ne yéene nga ko nga def ko ni nga ko bëggee te ànd koog ñi nga ko ñi nga ko war a ña ña nga ko war a àndal te daje cee ngërëmam suñ borom loolu suñ borom mën na ko jàpp nag yàlla nañ ko mënal yàlla nañ ci dimbale ci loolu ginnaaw loolu nag ñu nekk ci weer wu tedd ndax yonente bi sallallahu alayhi wa dafa waxoon ne ñetti weer a ngi nii weer wu njëkk weeru suñ borom la muy rajab weer wu ci tegu mooy sama weer la muy weeru saxbaan ñetteelu weer bi nag mooy weeru koor weeru koor nag nee na mooy weeru sama xeet kon mu mel ni nag bi nga xamee ni ñu ngi ci weer wi nga xam ne mooy weeru sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te am ànd ak yu bari ànd ak yiw yu bari war nañ koo bàyyi xel ngir xam ne suñu dund dey bu ñu waxee ne yaa ngi yaa woon ci weer sàngam ba mu yàgg nga jóge ci ñu ne la yaa ngi ci weneen weer nga daal di xam ne kon am na ay waxtu yu bari jóge ci sa dund ndax waxtu yi ndax fan yu ne fanu fan bis bu nekk ay waxtu yu bari la la dugal ci biiram kon nag bu fekkee ne jeexal nga ay bis bu jeexal weer kon da nga xam ne waxtu yu bari jóge na ci sa dund te xam nañ ne dundu doomu aadama day lu gàtt la te suñ boroom dafa dafa yéeme ndax li tax mu gën yéeme te ñu xam ne aw yiw rek la naral doomu aadama yi moo di ne bi nga xamee ne indi nañ kaw suuf ci kaw suuf sii te lim nu fi indee mooy ñu jaamu ko mooy sàkk aw yiw ci aw yiw ci moom kon mu mel ni dañoo nekk ñoo xam ne suñ borom moonu moonuy liggéeyloo ci kaw suuf si kon liggéeyloo ba bay nga xam ne moom liggéey moom lañuy liggéey ci liggéeyloo ci kaw suuf nag dafa wuuteeg ni nga xam ne noonu la doomu aadama di liggéeyloo ndax xam nañ ne doomu aadama bu lay liggéeyloo da lay wax ne boo ma defalee lii ba mu jeex ma fay la ma fay la nangam wala mu wax ne la boo amee wax boo defee lii ci waxtu sàngam waxtu sàngam ba ba waxtu sàngam mën nga moom nga may liggéeyal dinaa la fay nangam ak nangam waaye suñ borom nag li ko tax a yéeme mooy moom dañuy liggéeyloo te waxunu wax wan waxtu la waxtu ci ndax tegu liggéey ba ci waxtu tegu ko itam ci jeexu ci jeexuk liggéey ba dañu ko lëmal rek dañu wax ne liggéeyal liin ma rek waaye waxunu ndax ci waxtu lañ koy liggéeyal waxuñu itam ndax ci weer képp lañ koy liggéeyal waxuluñu ci at lañ koy liggéeyal waaye dafa wax ni liggéeyal ma rek loola nag li muy tekki mooy day dalay bëgg a won ne yow doomu aadama ji amoo benn waxtu boo xam ne war nga koo sàgg ca ca àdduna ndax comme dañ lay liggéey loo liggéey boo xam ne ci àdduna si nga war a defar war a defar itam sa ëllëg alaxira te loolee ñu wax waxuñ la benn temps lay diire ci yow xamoo kañ nga fi jóge xamoo ñaata waxtu ngay dund xamoo ndax ñaata weer ngay dund te ñu ngi lay sant liggéey bu toll noonu kon li lay won lim lay won mooy dangay ngay daal di xam ne kon man doomu aadama ji day amuma benn waxtu boo xam ne war naa koo sàgg waxtu wu nekk rek damaa war a jéem a mu fexe mu jaar ci fa mu war a jaar fexe koo jeexale ni ma ko war a jeexale ngir ëllëg ma mën a ci daje ngërëm suñ borom loola nag moo tax suñ Tuubaa moom mi nga xam ne jàngalekat bu rëy la te bàyyi woon xel yu baree bari li jàngal ne doomu aadama ji day daa war a nekk koo xam ne day bàyyi xel waxtu wu nekk cëram yi nga xam ne moo nekk ci moom na koy bàyyi xel di ko téye ba benn cër du ci jaar fu mu wut jaar mu de ko defee itam ak dundam benn waxtu wala genn noogu goo xam ne jeexal na ko ca na ko bàyyi xel ba xam noogoogay noogoogay ci lan la ko jeexal ak li nga xam ne ci lan la ko def ndax loolu kat mooy tax xam nañ ne ndax noo mooy moom ci ngay jàll ci ngay ci moom ngay def moo gën a tuuti waxtu moo gën a tuuti itam moo gën a tuuti itam ab seconde kon mu ne waxee ne sa noo gu nekk na ko bàyyi xel ndax noo gu ne mën nga ci am yiw woo xam ne yiw wudul wudul jeex la ba mbukk ci àdduna ak alaxira loolee nag kon mu doon kon noo gu nekk nee na na koy bàyyi xel ndax noo gu ne mën nga ci amee loo xam ne mën naa defar sa àdduna mën naa defar sa alaxira loolu nag mu tax delluwaat itam wax ne ab murid dëgg-dëgg dal mooy ki nga xam ne lépp loo xam ne mi ngi koy def waxtu wam wam wa mu laajee mu def ko rek na ko ca defee waaye bu mu doon koo xam ne day xaare ëllëg wala damay xaare ba ngoon wala damay xaare ba benn waxtu waaye lépp loo xam ne war na la rek waxtu wa nga xamee ne egsi na na nga ko daal def ci nanga ko war a defee ne ndax looloo nee na mooy mooy tax nga mën a mucc ndax boo ko defut waxtu wu ne xam nañ ne day ñëw andiwaale ay soxlay boppam kon nag bu bu soxla yee baree mën ngaa mën na tëb na nga ca war a taxawee ni nga ko na na nga ca war a taxawee doo ko doo ko war a taxawee loolu loolu nag suñ borom mi nga xam ne borom yërmande la te itam boroom xéewal la bàyyi na bàyyil nañu xel xam ne doon du euh, doomu aadama day lu gàtt la te li ko ci war bari lool kon nag war na ko ubbil bunt yoo xam ne dana ci mën a am ci aw yiw ci ay fan yu néew ci ay waxtu yu néew mën ci ay am ay yiw yu kawe yu rëy yu rëy rëy loola nag moo bokk na ca li nga li nga waxtu yi nga xam ne manees na cee amee yiw gu rëy te man cee amee xéwal gu rëy weer wi nga xam ne moom lañu nekk muy weeru baraxlu wi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne képp koo xam ne màggal nga weeru baraxlu wi màggal ga nga màggal nag mooy tax doxe ci na nga ci war a doxi rek ba nopp ci boole ci ragal yàlla ni nga war a sa kemt lay kattan jëfe itam ay digalam moom suñ borom kem sa kem kattan téye sa bopp itam ci ay moyam nee na koo def ku nekk day na nga xam ne suñ borom dana la jéggal sa bàkkaar yépp te itam du yem ca loola waaye lépp loo xam ne mooy musiba ay ak na bu ñuy xool jëfam mu fekk suñ borom bu suñ borom di xool ay jëfam fu fekk mu nekk moom ci li suñ borom gën a bëgg muy koor ndax xam nañ ne suñu borom moo wax ne koor day man maa ko moomal sama bopp kon loola lu kawe la ci moom lu rëy la ci moom mu mu doon loo xam ne itam yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan na ci faral woor loolu ndax loolu nga xam ne ci la mooy weer wi nga xam ne ci la suñ borom di xoolee jëfi joomi joomi jëfi doomu aadama yi waaye nag am na geneen ak am na guddi gu rëy itam goo xam ne mi ngi ci biir weer wi muy guddi nit su saabaan muy dibe guddi di dibéer ci guddi mooy mooy guddi nit su saabaan altine ji doon bisub nisu saabaan kon mu mel ni Jibril ci guddi googee lu kawee lay loo xam ne itam nee na Jibril sallallahu alayhi alayhi salaatu wasalaam ñëwaloon na ko ci ne ko xamal ne yow yonante bi sallallahu alayhi wa guddi gii day mooy guddi nisu saabaan xamal ne itam ne danañ ci ubbi bunti asamaaw yëpp danañ ci ubbi bunti rahma yërmande yëpp kon nag li nga dangay ngay ubbi nañ ci bunti asamaaw yëpp ngir jëmi jëfi jaam yi mën a jàll ca kaw ci la ñu ubbi itam buru yërmande yëpp nga xam ne képp koo xam ne sox nga yërmande suñ borom man nga war ngaa mën a tàllal sa borom tàllal sa loxo ci bis boobu tedd bi bi tàllal ñaan suñ borom yërmandeem nee na kon nag de nga war a def mooy jógal yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naafila julli te tàllal say loxo ñaan suñ borom loolu nag kon mooy ëpp aw xéewal la goo xam ne suñ borom moo nu ko andil ñu war ko bàyyi xel ci guddi googu nga xam ne mooy guddi dibéer ci guddi di nisu guddi nisu saabaan ak bis bi nga xam ne itam mooy bisum nisu saabaan ci boppam ñu bàyyi xel ne yooyu yëpp lu bis yu tedd lañuy yu mat a bàyyi xel lañ ñu gis na itam lu rëy boo dee xool ci jëfi ci Sëriñ Tuubaa da nga gis ne ci guddi maanaam ci nisu saabaan moomu def na ci loo xam ne kam ko defal xamal ne jox na ko cër bu rëy bàyyi na ko xel itam muy maam Thierno Ibrahima ndax xam nañ ne ci bis boobu ci la njëkk a gisantee ak sëñ Touba ginnaaw bi sëñ Touba jógee ci géej gi loola li muy tekki mooy te xam nañ ne bis boobu itam ci la ñuy tàllal jëf yi doomu aadama yi suñ borom di ko xool kon mu mel ni tànnal na ko bis bi nga xam ne ci la bis bi nga xam ne ci la suñ borom di xool jëf yi ngir mu won ko ne ko moom kat ginnaaw bi nga xamee ne suñ borom dogal na li mu dogal ci moom ba mu dem mel na ni taxawaay ba nga xam ne taxawaayoo taxawa taxawoon na ko taxawaay bu rëy la ba bëgg def na suñ borom seera ci mu gis jëf joojee nga xam ne jëf na ko kon suñ borom bi nga xam ne mooy borom ak jàppale te borom ak dimbal ñu war a xam ne doomu aadama wala ñu xam ne ab jullit dafa am responsabilité bu rëy boo xam ne da ko war responsabilité bi mooy dafa war a defar addunaam war a defar àllaaxiram te waxuñ ko ne ko nangam nga fi am waxuñ ko itam nangam ngay dund te war naa defar ñaari ñaari barab yëpp kon dafa li war a li mu war a def ci xelam mooy naa xam li ma war ak nan laa ciy taxawee mu di ci war waxtu wu nekk moo xam li ko war xam na mu cay taxawee di fàttaliku itam xam ne am na lu nekk ci kanam loo xam ne fa la ñuy xoolee lam doon def ndax tege na ci kaw wala tege na fa mu war a tege wala wala wala tegewul fa mu war a tege suñ borom mi nga xam ne nag mooy borom jàppale te mooy borom dimbal na ñuy dimbalee ba waxtu wu nekk ñuy teg suñ tànk fañ ko war a teg di doxe ni ñu war a doxe ngir ëllëg ñu mën a daje ngërëmam ndax ngërëmam ak yërmandem rek mooy suñ càkkuteef ci ci kaw àdduna si ndax amuñ leneen luñ fi sàkku amuñ leneen luñ fi bëgg itam moom mi nga xam ne nag mooy borom jàppale yàlla nañ jàppale ba ñu ëll àdduna si ñu joj daje ci ngërëmam ak yërmandeem ëllëg loolu suñu borom mën na ko jàpp noonu yàlla nañ ko defal allah bana la tusi xulubana baada is hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana ighfir